ñoom ñooy xeex lépp lu jëm ci mbirum borom ñaari tur yi nag jamono ji ña ngay dal ci kaw Ousmane Sonko laas nag lu jëm ci waxtaane ñu doon amal ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ci mbirum góor jigéen tax na ba ñi nga xam ne rek ñoom ñooy kilifa yëngu ci wàllu diine ji fii ci réew Sénégal ñoom ñëpp jug daal di taxaw l'observateur na génn gi nga xam ne rek moom la njiital Pastef génn daal di koo amal nag ci li nga xam ne rek moo di mbirum borom ñaari tur yi nag moom Ousmane Sonko mayetuñ ko dara tontu loo xam ne rek amul benn leeraange ci nopp ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di waa sàmm jikko yi ak waa jàmm Ambra ñoom la ñu gis nag yi nag rek dafa a a nangu a bu ànd sàmm ji koy nag di àddu jëmale ci kàddu yi nga xam ne rek moom la Ousmane Sonko yëkkati jëmale ko ci mbirum borom ñaari tur yi moom ma ngay xamle ci biir yëglekaay bi ne njiital Pastef lii dafa def erreur bu rëy rëy Ousmane Sonko dafa sulli ab débat boo xam ne rek foofee amu fa woon place damaa xamul sax nag lan moo waral mu daal daal di fay tudd mbirum borom ñaari tur yooyee te nga xam ne rek Mélenchon mi mu doon dalal àdduwul sax jëmale ca dafa xamle ci ndaje moomee moom Ousmane Sonko ne askanu Sénégal nag mën nañoo toléré loolee di borom ñaari yi te lu ñu mel nag dara amu ca d'accord ma benn yoon nag ci kàddu yooyee mu yëkkati te askanu Sénégal itam nag amul kenn koo xam ne rek ànd nga ci ñuy daganal lépp loo xam ne rek moo jëm ci borom ñaari tur yi lu ñu mel kenn du ko fi dépénaliser waaye dañ koo war a xeex criminaliser ko Walf Quotidien àddu jëmale nag ci cong gi nga xam ne rek moom Ousmane Sonko jëmale jëmale ko ci Macron tapis rouge bi nga xam ne rek lalal na ko kii di Mélenchon tournée bi muy waajal jëmale ko ci pour yi nag yéene kaay bi ne Ousmane Sonko ma ngay wane boppam la le quotidien yëgle kaay addu jëmale tey ji ci déclaration politique générale bi nga xam ne rek élimaanu joriñ bu Sénégal mi ngi koy waajal nag ngir amal ko foofee ci assemblée nationale la mu bëgg rek bokk na ci jëwriñ yëpp daal di ciy sóob seen loxo fileeg ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mai Vox Populi dellu siwaat ci enjeu de pouvoir yi nga xam ne rek ñu ngi koy waajal jamono ji nag jëm ci organiser waat nag lu ñeel état major politique yi nag ñu ngi jëm ci ay élection législative yoo xam ne rek boo moytuwulee deuxième tour dana ca am Pastef ak majorité bi nga xam ne rek moom la bëgg jamono ji yéenekaay bi nag ne dina ko jaral mu liquider ñëpp ñi nga xam ne rek da leen a jàppee ay opposants milliardaires sénégalais yi nga xam ne rek dañoo jëloon seen lépp wékk ko kii di Abdoulaye Wade naka noonu Macky Sall ndax Jomaay Fay dina mën a am lu ni mel yéenekaay bi ne y'a jamais 203 Sud Quotidien la ñuy àddu jëmale nikk tey ji nag moom dafa xëyee lu jëm ci campagne agricole bu atum 2024 jàpp 2025 yéenekaay bi ne Mabouba Dia Diagne ma ngay marqué terrain ma ab wàññeeku bu toll ci 22 pour cent nag ci njëgu engrais bi moom la daal di annoncé jëm ci campagne agricole bi nag 35 000 tonnes yi nga xam ne nag dafa jëm ci wàllu phosphate nag ñu daal di koy jébbal ñii di producteurs yi mobilisation bu jëm nag ci financement yi nga xam ne rek moo soxol système bancaire yeeg yeneen ak yeneen initiative jamono ji nag mi ngi koy taxawal jëwriñ ji ñu dénk wàllum agriculture souveraineté alimentaire et de l'élevage moom jamono ji nag ma ngay def ay jéegoom ànd ci ak gouvernement bu Sénégal ngir mën a am ndam ci campagne agricole deux mille vingt quatre jàpp deux mille vingt cinq l'info yëglekaay feelu ko ci campagne agricole bu deux mille vingt quatre boobee nga xam ne rek ñu ngi koy waajal ne état bu Sénégal jamono ji nag ma nga cay xar tànk tubayam lu toll ci téeméer ak ñaar fukki milliards ci suñu xaalis nag élimaana jooriñ bu Sénégal ma ngay xam ne ni daañ ko ci dugal gouvernement bi fi mu toll nii nag taxaw na temm nag ngir wàññi ñaar fukk ak ñaar ci téeméer boo jël ci njëgu engrais bi fukk ak juróom-ñeent ci téeméer boo jël ci filière tomate bi nag fanweer ak juróom ci ton ci ay phosphate nag daañu ko jébbal ñii di baykat yi téeméer boo jël ci wàllu financement nag daañu ko jox soxna yi 20 pour cent la ñu fas yéenee dugal ci semence yi nga xam ne rek moo ñeel gerte gi ak ceeb bi 15 pour cent ñu daal di koy dugal nag ci subvention yi nga xam ne rek moo soxal tracteurs yi 20 pour cent jëm ci matériel agricole bi docteur Mabouba Diagne di xam xamle ci biir yëglekaay bi ne ndimbal gi nga xam ne rek moom la ko gouvernement bu Sénégal jàppale moo waral ba mu mën a wàññi nag njëgu engrais bi waaye daañu yokk quantité bi nga xam ne rek moo jëm ci boobee engrais ba mu toll ci fanweer ak juróom ci ay junniy tonnes leneen ci yëglekaay yi bokk na ci enquête mi nga xam ne rek génn parti bu yees bi nga xam ne rek bëgg na koo taxawal génn ca APR moom Amadou Ba mi nga xam ne rek ma ngay fas yéene taxaw jàkkaarloog ëllëgëm ginnaaw patt pataaral gi ñu nemmeeku ci moom bi élection présidentielle yi jàllee ak léegi nag moom Amadou Ba nag yéene kaay bi ne ndax dina fas yéene doxal nag lu jëm chef de l'opposition bi wala day taxawal apartem nag lu mu ci doon ab dirigeant bu APR nag ma ngay xam ne ne Macky Sall moom a ko yëglekaay daal di àddu jëmale nag ci dellu siwaat gi mu dellu si nag fii ci réew Sénégal moom Amadou Ba ngir xalaat lu jëm ci ëllëgu wàllu politique am day des APR wala daf fay jóge lu mu ci mënti doon professeur Moussa Diaw nag mu ngi xam le ne daal courage bi nga xam ne rek Macky Sall am na ko ci bi muy quitté kii di Abdoulaye Wade rekk war na koo mën a inspiré moom Amadou Ba bu fekkente ni nag bëgg naa wane boppam ci langue politique gi nag faaw rek mu daal di jël ay matukaayam le soleil yëglekaay àddu jëmale ci màggal gi ñuy màggal 136e édition bu pèlerinage marial Popenguine yéene kaay bi ne lépp daanaka yemb na laata pèlerin yi di yegsi nag brigade régionale bu hygiène jamono ji nag daal nañ fay jëlee lépp loo xam ne rek moo di ab saleté ak ndox yi nga xam ne rek moo fa daan taa askan wi jamono ji nag ña ngay waajal ngir dalal ñi nga xam ne rek ñoo di gan yi njiitu mii di président Bassirou Diomaye Faye nag ñu ngi koy xaar ca sanctuaire bu yees bi nga xam ne rek ma nga ca Popenguine Les Échos yëglekaay addu jëmale ci wàllu abus de confiance ak escroquerie ci wàllu visa yéene kaay bi ne la dëgër de nag yóbbu nañu ko ca prison moom moomee nag